ci la ci ci la ci gars yi focus te biñ ci focusé tamit gis naa ne dém moom wax dëgg fa yàlla macha allah réussite totale lañ ci am waaw. gis salle bi salle bi fees dell. Sidi ñëw entrée Sidi bi nekk lu ban sentiment nga am. mais non mais mooy fierté rek fierté ndax Sidi moom comme li may wax chaque jour rek du musique quoi du musique moo ñu boole quoi loolu yàgg na avant musique la yii yëpp dafa bokkoon ci suñuy rêve dañ doon toog ñu ñëpp ñoo doon noo soit sama kër wala këram. teg bi gars di ñu joué salle bi grand yi di fi jaar ils ay Youssou Ndour Ils ah, ay papa frère ñoom Pape suñu grand frère ah, Pape Ils di joué suñu suñu suñu Ils Vivi ñun ñu On rêvé mu eh ay ñuy la salle bi ñu ñu ne ci liggéey rek ne ci souf di liggéey di liggéey dem ba am fuñ suñu grand muy Matar mu niveau

pour nga percer ci kaw scène bi métti woon na parce que tubaab yi xam nga rek ñoom ay directive la ñuy topp dem naa ba yëg ci kaw ci bi soirée baa ngi daw si di dawal na ay morceau dem ba soirée bi xaaj ay nit yi nit di ma woo parce que comme sama numéro dafa nekkoon ci ci réservation yi ay nit yi nit di ma woo jóge ay Allemagne ñii ay Belgique ñii ay Espagne ñii jóge ay a a mën a départ ñëw xam nga ñii seen vol tardé ñii léeg laa pare donc munu parce que instant on tamit ñu ngi ci ci ci job bi ñu ngi ci ci marqué trop trop trop soirée bi ba kilomètres vraiment c'est sentiment de fierté mais on, lu ñu parce que nous, on ñu sañoon fi soirée vraiment c'est ñun c'est ça quoi a fait ci extérieur bi comme ni ma ko waxee sànq nekk une pièce maîtresse ci événement bi ci réussite événement bi bi nga euh, demee nag Italie seen tournée boobu noonu ñu bari naan Baye Niass daw na mook Sidy Diop dañoo am problème ah, dem na léegi fara cekke la lu ne ñu koy wax lu ne ñu koy wax alors euh, tu as montré carrément que ni li ñu doon wax amul lan moo taxoon ñu doon wax yooyu yëpp ci yow te tontu woo war a leeraloo sa diggante ak Sidy nga préféré garder li nga xamante ni moom mooy silence bi tout au long de ces de ces de ces de ces jours là non mais xam nga xam nga xam nga sénégalais yi moom mooy li may wax chaque jour rek bu dara xewee ku ci ne da ci am sa sa opinion te duñ leen ko bañal parce que ci showbiz lañ nekk quoi waaw ah, man boo xoolee presque mën naa ne deux ans bi coow bi bi bi bu genre bi coow yooyu amee ba tey kenn mësuma dégg ma wax comprendre nga kenn mësuma dégg ma wax ci. désolant désolé ki daf may wo xamna naa dafa agsi fi motax tax xam nga li ma leen wax bi coow li amee ba tey kenn déggul wax ci mais moy li ma la wax rek xam nga showbiz dafa dafa don lu lu graw mais dafa nek quelque chose bo xamante ñi koy séq acteur yi lu privé lay don ndax yaaka naa démb bu ñaawon tay duñu gis en présence fi comprendre nga ñun ñi ne ci biir ñuy acteur yi xamante bu baax te réro wuñu réro non réro wuñ suñu biir lépp lu amu ñun waxtaan nañ ko ci biir sénégalais yi nag genre ku ci ne nag am te loolu mooy ku nekk day joxe avion loolu duñ leen ko bañal parce que ñun ñoo opté wu nekk ci showbiz loolu bi mu amee ku ne wax na lu ne dégg nañ ko mais mosuñu dégg man ma toog fenn wax tamit sama rax tamit pareil Matar mi sama mag parce que ñun réeroo wuñ suñu biir ñun décision bu am ak lépp lu am ñun waxtaan nañ ko ñun ba déggoo ba mu carré parce que bu réeroo amoon tey ji doole ma gis fii doolu ñu gis ñu ne ci ndax ñun ñoo ngi fii mais ba tey ñu ngi continuer di wéyal job bi parce que waaw parce que tey jii boo xoolee ñun bi ñu nekkee Dakar xam nga ñoo nekkoon pionniers yi am suñuy raq yu newoon suñu ginnaaw di ñu xool di ñu topp tey ji ñun dañ leen war a jox lenge ñun ñu parce que sii di tey jii warul nekk Sénégal rek warul nekk Afrique rek daa war a international te tey ji suñu raq yi war nañ nekk Sénégal di ko gérer ñun ñu ne fii. di ko doxal ba affaire bi wër aduna parce que mooy li ma lay wax chaque jour rek musique dafa universelle musique du lu teju musique dafa war di ubbeeku ndax musique luy bolé la musique da nga soxla lépp da nga soxla culture yépp da nga soxla ñëpp parce que musique la. ngay soog di ñëw ci dëkk bu bees war a installé wu lu jënd sa bopp ngay bégg ay wax ginnaaw ay dafa daw ak dafa war dafa def lii euh, daan la daan def dara. non du no no mais genre du la du ma def dara parce que mooy li ma lay wax chaque jour ñun ci showbiz lañ nekk yàgg nañ ci def nañ ci ëpp na fukki at dara mënuñoo dara mënuñu genre da ngay gis yenn message yi sax wala yenn commentaire yi après da ngay reetaan parce que yéen ñu ko yéen ñu toog waxtaane ko yéen ñu nekk pionniers yi xamante ngeen xamante ngeen waxtaan waxtaan ngeen li ngeen di waxtaan ba tënk gere ngeen li ngeen gérer ba tënk yaa ngi ci li ngay nekk ñoom ñu ngi ci li ngay nekk ñoom ci li ñu nekk du ma du ci am métit parce que ñun ñoo opté nekk ci showbiz dégg nañ lu ne gis nañ lu ne mais teewul du ñu mës a def loo xamante ne tey ji ëllëg ku ñu xool daf ñuy xeeb parce que yàgg nañ ci showbiz bi mais gëm naa ni image bi ñu wone ah duñ taxaw fenn bañ na càmm parce que dañoo jàng ba yor suñuy diplôme yaa may dégg cumulé ko ak showbiz bi ak business bi lépp showbiz nag show la ak business boo ci nekkee waroo daw benn coow mais lépp lu ñëw da nga koy jël ak philosophie jël ko positivement objectivement nekk ci te ñun ci loolu lañ yàgg dox ndax tey xaw nañ yàgg ci affaire bi commencé nañ comprendre comprendre commencé nañ comprendre showbiz ak lan mooy showbiz commencé nañ xam musique c'est ça quoi moo tax yu bëri duñu duñu jaaxal quoi c'est ça je vous rappelle, on est avec Bagnas El Capo, l'international. Parce que Tamit, quoi qu'on puisse dire, international, Nankonango. Alors, euh, Bagnas, nous avons cette complicité avec Mara. Cette relation avec Mara, avec Ningen de Dundé du Orobini, est-ce que vous avez signé Non, mais Mara, Mara, c'est ma rakhla. Mara, mon nane, Sidi, ça me présente Mara. Parce que Sidi et Mara, si on regarde, on voit qu'ils sont des enfants qui sont des enfants. bu ñu doon jékki-jékki Sidi bu amee ay affaire ci waawoon comme war jouer mariage wala ben genre soirée wala genre yoy Nous ñu taxandoo ñun suñu bagage dem a buñ demee Tiwaawan Mara bo xolé du nelaw du def dara moy dox course yépp moñu ko xam nga parce que mo aussi di ñoo fowandoo ñun suñu laal suuf da doon luñu soxla moy daw def présentation affaire nice mu ñew Dakar bi ñew Dakar ñun ñëpp ñu nekkando bokkando ben koñ ñun ñoo doon and ñoo famille la koñ la avant avant musique bi la sax genre Sidi ngi doon lolo dem ba nek lepp dafa naturel bo xol and bi dafa naturel ñun suñu and dafa naturel moo tax kuy wax na nga xam lo ci wax parce que famille la té ñu wax chaque jour rek famille dina dina am mais dina am ay jaxasoo dina am ay rëq-rëq ci famille yëpp la ndax ba ñëg làmmiñ sax ñoo dëkk mais des fois ñu jotee mais dajé day amaat parce que dañ dem ba famille jaxasoo muy suñu yaay suñu yaay yeeg suñuy papa yeeg suñu frère yek yëpp dañu dem ba dafa nek nekk famille donc fofu lu ñaaw xeetu dafa mënu mënut fa am. lépp day nice Mara sama rakk la sama lépp la yee ñooy nekkandoo ci lépp waaw comme ni ma nekkandoo ak ci lépp c'est ça quoi. solo donc euh, sans plus tarder dañ lay bàyyi nga dem parce que yaa ngi war a bakk say occupation mais un mot sur euh, le PDG de Subatel Matar euh, Matar Diop ñu koy remercier encore fois de plus ci opportunité bi mu ñu may jël presse bi Univers Info Dakar Live ñëpp ak ñeneen yi nga xam ni ñëwuñu yëpp dugalal leen xam nga loolu mënoon na ko si bañ a fekk aussi ñu koy remercier encore une fois un mot sur Matar Diop Soubatel. non euh, uh-huh. euh, sa sa sa sa grandeur. ak idéologie nga xam ne da koy am surtout si musique musique mm-hmm. nga ñu mën wax aussi ci Matar ak projet yi. non xam nga Matar mooy li may wax chaque jour rek Matar dama ni Sénégal bu ñu amoon dix yu mel ni moom cult waxuma sax musique mais culture Sénégal day avancer. waaw Matar dafa nekk nit koo xamante ne dafa nekk nit koo xamante ne man mënu ma sax di wax ci moom parce que sama grand frère la sama lépp la mu nekk nag nit ku baax nit ku yaatu nit kuy dundal culture Sénégal Matar li may wax chaque jour rek Sénégal bu ñu amoon dix personnes yu mel ni moom waxuma la musique mais culture Sénégal day avancé parce que Matar boo xoolee depuis 2013 mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi tëgg Zénith tëgg na événement bu ne.

ma tok deux jours trois jours quatre Je ne ma déposé ma dem déposé ñëw toog fàtte naa ngi le pas le amul dara lu muy exiger wala dara ma tok mu xey kar message man ko jot message mais ma lu wax ni non visa mais naturellement ah, xam nga te mu ko man non lo ko depuis plus de dix ans mu koy def kon koku bu bu jàppale ko parce que tey ji boo xoolee fii kaw bi booy xool doo am sax jot ci sa liggéey ngay nekk ak lépp mais lu mu xat-xat-xat ah man boog bàyyi ñes dama sacrifier lu bari ci sama job parce que grand bi jar na ko parce que indi na ma fii te fayu ma ko dërëm indi na ma fii te séntuwu ci dara indi na ma ba fii te te te te xaarul ci man dara lépp lu am dama koy woo ñu waxtaan ci man ak moom mu may xelal di ma conseiller jàppale ma ci lu bëri jàppale samay moroom ci lu bëri jàppale ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ma fekkee mu jàppale ñu bëri jàppale ku ne Matar Matar Matar Matar <laughs> ko yow grand walliw nga wax naa ko parce que parce que Matar xol bi mu yor macha allah kooku munul xewle nee ko grand yow doo mës a am defet yow doo xewle mukk parce que lim leble la ko nit ñi di fay Matar boo xoolee gars yi sacrifice yi gars yi def wax moom parce daf ko def ndax ñoom moo tax seen bopp bàyyi seen temps parce que temps dafa précieux surtout fii ci kaaw bi kenn amul jot bu xëyee yaa ngi liggéey boo wàccee yaa ngi sa mais gars yi dañoo ci Zénith xoolee xam ne ko waaw ci diggu ñànkatang bi soos bu ñëw nga ànd ak moom te ku xam ne communication bi dafa jàll moo tax Zénith bi dox communication moo yor bis ku xool démb affaire yi xool xam ne gars yi dañ ci joob te yéen tamit waa presse sénégalaise bi muy yéen Dakar Live Univers Info waa Fifita People guy gi sama xarit gars yëpp dañ ci joob motax mu nice ni ni ni ñu leen di remercier yeen ñep parce que yeen tamit yeen ngi yeen ngi yeen ngi contribuer ci culture Sénégal kontaan nañ trop. respect un mot pour Sidi Diop ak conseil yi nga xamantene mo ngi ko jox en tant que son grand frère ñu tëjee ak loolu. mais Sidi Diop moy limay wax ak mom chaque jour rek xala nga da nga nek ci yoon sa xere waxat nak ci óol bi xala nga guñu dara mu ne mo ola fe man ko guñu dara dañuy song yeneen sal yu gëna mag parce que amna chance nek xalé mais kilifa ci musique Sidi job? xale la ci âge mais kilifa la ci musique parce que bo xolé ben cinq ans six ans la def 2016 2017 la xool ñu ñi commencé découvrir kon yagul tay ji mëno tuddu ñet artiste wala ñent artiste Sénégal ci doo ci bolé lolu li ko may moy mu nek xalé teel a gëm ci lu mu ne xool li nga xamné da koy yàqal ci musique mu tegee ko ne le nek ci lu mo war a ba par nak yor ay encadreur yor ay nit yu ko yu ko ñak c'est important musique amal ñu la ñak yorol mafia ñi nga xamne dañ lay ñak di la teg ci programme et di la wax deug di la xool looy avancé loo te mom yalla da ko may lolu wa ah, Matar nak jité lepp nekk ci kaw di coiffer di coacher lepp day def Sidi day def yenen sal yu gëna reuy Zénith man maa la wax li avec Subatel musique man maa la wax lii te nañ ko xaar. Yeah. El Capo, hein, euh, son, nom, son nom vraiment ne nous trompe pas parce que bon, El Capo, euh, philosophie là d'abord. Il a beaucoup de maturité, il comprendre le monde et c'est important. donc ñu lay remercier bu baax baax ci temps bi nga ñu may ñu yaatal def briefing ci li nga xamante ne moom mooy bi ñu passé ñu lay bàyyi nga tàggatoo pour mbokk internet yi ñu doxante rendez-vous. waaw maa ngi maa ngi maa ngi tàggu ñëpp di nuyu Sénégal ah di nuyu waa diaspora bi waaw mention spéciale ci diaspora bi surtout Paris la France France lay wax sax mu ñu Marseille Montpellier Lille ci Normandie bi lu ko dalé mante la jolie jëm Elbeuf Muro Rouen ah, Le Havre xam nga Bordeaux ñep ñep dajolo Lille Rennes ñep dajolo ñew boo waxuma la wa Belgique Espagne Italie Allemagne ñu jóge ba États-Unis ñew contribuer ci bis bi ñoñu amuñu seen fay wa Sénégal tamit moy ñi fa toog di ko muy ñi yag and ak sidi yag ko bëgg muy way staff bi muy mafia bi ne fofu ñi koy liggéeyal ak ñëpp ñom ñewuñu mais seen xol a ngi fii ñëpp stressé wu won di message di woté di xol mais bañ gisee lolu ñëpp a soulagé wu may wax rek le travail continue sidi seen rax la seen frère la seen dom la jappalé len ko da ngeen ko jappalé parce que xale la te am avenir té musique Sénégal yaakar na ci mom waaw te ki xool dem li mu def Zénith xam ne musique bi am na ci moom yaakaar waaw incha allah rabbi maa ngi remercier ñëpp. yee big love jaajëf.